bismillah asalaamaaleykum ñaanal na leen jàmm yéen ñu topp ci sunu chaîne youtube bi di xalam tv ginnaaw benn live bu benn ci candidat yu ñeel élection présidentielle yi di ñëw ci Mauritanie yëkkati ay kàddu di def ay menaces ci ni bu jëlee réew mi fii di Saint-Louis ak fi ñu tuddee Rosso Mauritanie te mu bokk ci Sénégal ci Fouta muy xamle ni dañu koy nangu ndax Mauritanie moo ko moom mu ni sax nekkul loo xam ni lu ñuy nekk di ko waxtaane la mbaa lu ñu toog di ko dialogué waaye daa nekk loo xam ni dañu koy foqati ci doole maanaam ci ngànnaay turam nag mooy Mohamed Salim nekk kenn ci ñi bokk ci joŋante réew yi bokk ci ñenn ñi nga xam ni dañoo gëm ni war nañoo jiite réew moomee di Mauritanie daañu leen digtal nag li mu wax mu ko waxee ci la ko ginnaaw bi ñu firi leen ko waaye nag ñu dikkal leen tuuti ci histoire loolu di frontière yi dox diggante senegal ak Mauritanie coow li nga xam ni xewoon na ci jamonoy Senghor ak li Senghor def ci jël lu bare bari ci li féete moritani daal di koy jox waa Mauritanie waaye itam ba ci jamonoy Abdou Diouf la xewoon ñu gën ko xam ci événement naar yi nekk benn jàppante bu doxoon diggante sa senegal yi ak saa Mauritanie yi ak ginnaaw bi nga xamee ni lii di pétrole ak gaz bi feeñ na ci diggu Mauritanie ak senegaal ba tax kii di gësamu xamuñu ndax ku ñu ngemb la wala ak ndof moo ko lëm tax mu daal ni moom bu ñëwee li nga xam ni ci biir Sénégal la bokk ca cosaan moom da koy nangu ndax nee na dafa gëm ni ci Mauritanie la bokk laata nuy dikk nag ci firi yi dañu lay invité ci sunu chaîne YouTube bi boo nammee mboolem li soxal lii ñu lay yaatalal nga di ci jot gaawal abone waaye itam saa soo bëggee sunu dugalee vidéo ñun YouTube jotal la ko da ngay liker vidéo bi waaye itam ginnaaw boo toppee vidéo ba mu jeex bu la neexee mën nga ñu tontu ci commentaire yi ci ndax naar bii di wax nekk benn candidat ci ñii di sàkku réew mbaa ñii di dagaan réewu ndax da nga jàpp ni ku ñu ngemb la wala ndax da nga jàpp ni pétrole gaz bi koy xéñ mo waral mu bëgg a jóg ngir yé fitna jo xamné mënul xam fu mu yam yàlla bu ko yàlla jox nguur gi ba mu koy jox ku melni mom moom هو نتكلم عنها وهذه مسألة تعني السيادة الوطنية احنا خالقة تراب مغتصبة من طرف الجارة الجنوبية اللي هي السنغال هذه ندر ولاية ندر ولاية ساتور ورؤوس السنغال هذو أراضي موريتانية خالصة ولا بد من استرجاعها بالقوة ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة غير هذا لا لا يحصل عن طريق لا يحصل عن طريق أن لا يقوي الجيش ولا نبنوه ولا يعود جيش جمهوري ولا يعود جميع جميع مقدرات الدولة أكثريتها لا توجهني إني إني جيش قوي جيش قاعد يحمي الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية ويقد يأمن المواطنين من هذه هذا الخطر المحدق اللي مزربع علينا هذه الزريبة المزربة علينا هذا هاي الكومة النارية اللي مزربة علينا من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب معناها قضية ندر قضية خط أحمر وقضية سيادة والتخلي عنها انتكاسة حقيقية ونحن بعد مشروعنا الانتخابي أن ناويين إن شاء الله ومتعهدين للشعب الموريتاني أن لين, لين يعطينا ثقته ويصوت لنا يوم الاقتراع يوم 29 يونيو أن أول إجراء له نعدلوه بعد إجراء مكافحة الفساد ومصادرة جوازات السفر المفسدين أن لاهي نسترجعوا أراضينا المقصوبة بهذه هذه أرضنا صارت محمد الحبيب والشواهد التاريخية موجودة والوثائق الفرنسية والوثائق البرتغالية تؤكد ملكية ندر وليساتور للدولة الموريتانية وهذه مسألة مسألة مقدسة عندنا ومسلمان لهي نتخلاو عنها وقاطعين العزم ولو اللي يخلق عنا لهي نسترجعوا أرضنا تحت اي ظرف هذه مسألة متعهدين للشعب الموريتاني بها ومن ضمن برنامجنا الانتخابي ونعرف عن ذمات إياها بعض من الجواسيس وأصحاب الطابور الخامس ويا هم موجودين هون موريتان ويا للأسف عن وطنيتهم مقشوشة عندهم ازدواجية الوطنية هما يخدموا هنا تياهو يخدموا هكا مع السينغال والسينغال قاعدة على أرضنا وقالتها منا ولا بد مولي من مراجعة اتفاقية القاز هذه البئر هذه البئر في أرض موريتانية والسينغال ما يلا تلحس منه أصبعها ولا عندها علاقة به اللي في أراضي موريتانية خالصة ولا يتم إلقاء ذيك الاتفاقيات لا يتم إلقاها بإذن الله وحوله هذا فقرتين والله ثلاثة لا نتكلموا لكم عنهم من خلال عدة فقرات وفصول من ضمن البرنامج لينغ ورا خمنك لا تدرى جناو بينغ خميني تيولونغ واخي واجي مومودان ني موغي ريو موريتاني ñu gën ko xam ci mohammed salim mu ni ñuy tuddé Saint Louis ak fi ñu Rose Rosso Mauritanie ba li nga xamni mo dox seen diggante lepp mom mu daan ni lolu ci Mauritanie la bokkon waye sénégalais yi dañ ko keuf manam dañ ko fokati mu nak kon tok waxtaan du mo koy delloowaat ci loxoy mauritanien yi waye likoy koy ci seeni loxo moy jëfëndiko ay ngannaay moy ay arme waye ana lan mu indi wax ji yépp li nga wara xam ci wax ji moy lata conférence de berlin ci novembre 1884 jàpp février 1885 ci les amalon lii di conférence de Berlin ci dëkk bi ñuy wax Allemagne ñi nga xam ne nag ñoo fa daje woon mooy ñu mel ni ñii di France Italie Portugal Belgique Russie Amérique Angleterre ak ñu mel ni ñoom ñu toog waxtaane ana naka la ñuy séddalee lii di Afrique ndax lu jiitu loolu Afrique amul woon ay réew yoo xam ne dañu naan fii mooy Sénégal wala réew mu ñu naan fii moo tudd Guinée wala lu ni mel maanaam tubaab yi dañoo séddale woon Afrique ci ñaar mën nañu ne muy IOF ak AEF lii nii waa France ñoo ko moom lii nii beneen wàll gee ko moom muy ñooñ Angleterre ak ña ca des lii nii ñii di waa Italie ak ña mel ni ñoom ñoo ko moom ci biir loolu nag ginnaaw bi nga xamee ni daje nañ foofee ca Berlin ñu séddale lii di Afrique dañu ko jëleen rek jël seen règle team carte Afrique rek di ko séddale ñoom ni ñu ko sentiré loolu tax na da nga gis wenn askan woo xam ne ñoo bokkul lépp nekk wenn xeet ñu ñëw xaaj leen ci digg ba ñiy féete gauche ñuy féete droite ñu ni xaaj bi yéen ci réew mi ngeen bokk ni beneen xaaj bi yéen ci réew mële ngeen bokk ndax bi ñuy séddale dëkk bi wala bi ñuy séddale Afrique tubaab bi xoolul woon intérêt africain yi mbaa seen jàmmi ëllëg waaye moom li ko intéressé woon mooy naka lay def ba li nga xam ne mooy ressources naturelles yu Afrique yi ñoom ñu séddee ko ba kenn du ëppale sa moroom ci cëddale gi ci loolu nag ci li ñu séddee Sénégal am lefam ginnaaw bi nga xamee ni nag fu ci nekk ci zone yi nga xam ni duñu ko coloniser woon am na tur yu mu ràññee ko woon ci tur yooyu mu ràññee ko woon nag bu ci nekk foofu la ñuy jël jox ko benn ca tur ya daal di koy jox territoire bu boppam Sénégal nag yëmul woon ci dex gi maanaam ci dexu Sénégal gi muy li ñu tuddi dex Sénégal nga xam ni bu wëree Sénégal Sénégal day mujjee ci forme mbaa ci plan mu xaw a nuroo ak bopp gaynde waaye nag laata loolu dex gi Sénégal weesu woon na ko lu xaw a bari loolu moo nekkoon Sénégal waaye ginnaaw bi nga xamee ni dem nañ ba benn jëmmi jamono ay jàppante dafa tàmbali woon di am ginnaaw ci 1960 bi ñu toogee ngir def ay accord ci naka la ñuy def ba mën a délimiter frontière diggante Sénégal ak lii di Mauritanie ginnaaw bi ñu amalee waxtaan yi ba noppi xëy na Senghor mën na am moom dafa bañoon xëy na ak lëntal wala yu mel ni ay jàppante yi di am mbaa revendication yi ndax réew yu bare bari seenu jaamaarloo bi am wàllu suufa koy indi te mooy kii ni sama frontière fii la kii ni ku yemul fii fii la yam yalla bu fa nak lu mel pétrole ak gaz feñ la plupart que ci ëpp doole rek day gaawantu daal di profiter ci boobu occasion ngir ji ma foqati la nga xam ni moo fa nekk bu dee lu jëm ci wàllu ressource naturelle xëy na nag Senghor lu mel noonu la bañoon waaye ci jamono jooju mën nañu ne Sénégal amagul indépendance ndax ni mu demoon rek ba ci bi fi Macky Sall di jógee ju bare bari bu koy signé du ci def benn référendum du ci tàggu kenn waaye moom mooy jékki-jékki ci xelam mu rafet mbaa xelam mu ban. mu jékki-jékki signé bu noppee dara du ko ca fekk lu mel noonu nag li Senghor li Senghor def daal di maye li toppoon ci dex gi yëpp ci li nu nettali ci mboor bi ñu demee nag ba ci jamono yi Abdou juuf ginnaaw accord de Dakar yi ñu amal ci 1960 te Senghor amaloon ko Abdou Diouf bi mu ñëwee amalaat na li ñu tuddee protocole de Nouakchott ci atum 1973 la waraloon nag booba lay protocole mooy waxtaane lu soxal frontières yi diggante Sénégal ak Mauritanie ndax problème mu frontières yooyu mu indi woon événement Naaria ba ñu demee ba ci 1989 événement Naaria nag fa mu doore mooy dañu wax ni ay béykat Sénégal ak ay sàmmkat yu naar yi ñoo amoon jafe-jafe bi maanaam ci ñoom la cosaanoo ndax ñii di sénégalais yi dañoo nekkoon di bay ci seenum réew maanaam ci seen territoire ñoom sàmmkati naar yooyu di sàmm ba di leen ruural ci seen tool yi ci noonu nag la ñu waxee ni ci la naar yi demoon lëkkatoo daal di sot ay quelque baykat jàpp leen jël leen faat leen ba ñu loolu di amee ci biir jàppante bi ñii di police wala gendarmerie bu Mauritanie wala soobire su Mauritanie daal ci gàttal dañu interveniroon bi ñu interveniree au lieu ñu ñëw àtte leen ku ci nekk dem sa yoon waaye ñoom dañoo jàpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon Euh, askanu Sénégal yi maanaam ñi nga xam ñoo nekkoon doomi réewum Sénégal muy baykat yi ba ñu leen jàppee yóbbu leen Mauritanie ñu daal di faatoo foofee waaye mënu ca ñu jël leen gaaral leen takk leen maanaam dañ leen diir yi la ñu wax sax ci mboor ba ñu àgg fa ñu àgg ñu jël leen jël leen weer leen maanaam gaaral leen daal ci anam gu ñàng anam gu di ginnaaw bi loolu amee nag waa dëkk ba ci boppam tàmbali ñoom it di def seen ay réaction maanaam tàmbali di sot ci comme lu mel ni amoon na ñoom it dañoo war a jël seen ay responsabilité ci doomi Sénégal yi nga xam ni ñoo nekk ci réew ma ginnaaw jàppante ba ba mu amee diggante baykat ya ak càmm ya ak sàmm ya ci noonu nag saa Sénégal yi ñoom it dem ba information bi àgg ci ñoom ñoom it ni tàmbali di dal ci naar yi di dal ci boutique naar yi ba mbir ma mujj ëpp yoxo naar yitam itam jàppoon saa Sénégal yi nekk foofu doon leen rey rey yu ñaw yoo xam ni du jar ñu di ci jaara fii ci vidéo bi ngir li mu nekkoon lu salte waaye bi loolu amee itam saa sénégalais yi ñoom it xëy na defuñu na naar ya waaye nag dañu doon jàpp naar yi di leen duma am doon nañ leen rey itam waaye doon nañ jël itam seen boutique yi ginnaaw loolu nag kii di Abdou Diouf daal dinay amal ay dox tànki jàmm ak kookee nekkoon jiit foofee ca Mauritanie nga xam ne moom it ku lij la woon ku dëng jëfkatu ñawteef ndax bi mu noppee dafa dawoon na buti ji foofee ca Qatar ngir duñu ko mën a topp maanaam ngir bu ñu defee mandat d'arrêt international ñoom waa Qatar ñu mañ koo nëbb waaye ginnaaw bi loolu weesoo ba tey jii nga xam ne loolu wala foofee pétrole bi feeñ wala bañ ñu ni fa gaz bi feeñ ci diggante Mauritanie ak Sénégal dañuy wax ni ci Sénégal la bokkoon waaye Senghor moo ko mayoon ñoo ñu di ñooñ Mauritanie xëy na la mu ca doon bañ mooy dëngoo gii doon am léegi dex gi rek mujjoon a nekk benn espace buy délimité diggante Sénégal ak Mauritanie waaye Mauritanie yi saa Mauritanie yemuñu foofu dañoo dem ba dex gi nga xam ni moom la ñu defoon muy espace bi délimité diggante Sénégal ak Mauritanie ñu di ko xëccoo ak Sénégal ba dañuy wax sax ni yu bari bu ñu ko bëggee def ci dex gi ñoom ni du ci am bokk na ca loola muy la revitalisation des vallées fossiles bi nga xamni di ñuy faral di dégg Ousmane Sonko di ko faral di wax te moy fexe ba ndoxu dex gi ñu xotti li di jëri Sénégal manam suufu Sénégal man ko yaatal ci territoire bi ba fépp ci Sénégal ñuy mëna def li di mbayum dër ci anam go gëna jàppandi ke ñuy gëss ay forage wala yu ni mel waye bi ñu démé nak ba ci 2024 bi ben ci opposant yi di wax mom ne boo ko yàlla joxé réew Mauritanie li nga xamni moy Saint-Louis ak li ñuy tuddee Rosso Mauritanie mu ni li ci ginnaaw dex gi daal ci gàttal nga xam ni ñoom la ci ginnaaw dex ga te féete ak Mauritanie sax ñu moomuñu ko woon waaye si nga war a leen ko may te defu ci woon sax benn référendum may leen ko ngir bëgg jàmm xëy na ci njëkk ak teraanga léegi dem nañu ba xeeb loola ba bëgg a tëb sax dex gi ni léegi ñoo moom sax dex gi waaye moomaale li ci ginnaaw dex gi waaye nag ñu ni kon même pétrole bi wala sax moom waay ji sax moom dof bi muni ba ci pétrole bi wala boog ba ci gaz bi ñoom ñoo ko war a moom ndax foofu Mauritanie moo ko moomoon léegi mu naan archive yaa ci ñun ma nga ca français yaak américain yaak yu kenn xamut nun nag dañ lay bàyyi yow sa bopp yow mi ni teewlu nga indi sa xalaat ci vidéo bi ndax ki nga xam ne mooy door di toog muy Bassirou Diomaye Diakhar fay nga xam ne dafa war dafa woote rupture bëgg ànd doyadi bi nga xam ne moo doxoon sunu diggante France mu daal di dakk mook kiyam bii di Ousmane Sonko premier ministre am ndax da nga jàpp ni français yi dañoo xool ni mën ci ñu avantage yi ci li ñu am ci Sénégal ñu bëgg occasionné wu nag ci diggante lu mel noonu fekk dof bu mel ne dim naar ñu xambu sunu digganteem suñu diggante ak ñoom sunu mbokki Mauritanie yi nga xam ne jàmm dong moo dox suñu diggante ay saa Mauritanie yu bari nekk Sénégal ay Sénégalais yu bari nekk Mauritanie président bii fi nekk nii indi jàmm dox doxeen liin bu rafet di ko wone ba ñu ko xamee ci seen jëflanteek Sénégal diirub bi fi Bassirou Diomaye Diakhar fay toogee benn dof fële fële moom non seulement waxut sax ni day revendiquer ni ñoom ñoo moom territoire bii wala lii ci seen territoire la te dinaa waxtaan ngir ñu jotaat ci waaye moom dani ay armes moo ko mën a saafara ndax jàppoo ni ñii di français yi wala américains yi wala yeneen puissance étrangères yi ñoo topp ci ginnaawam di ko xam bu ba tax mu am fit wax lu mel nii te Mauritanie seen population mu ngi nekkoon 4 millions contre 17 millions ci at yi US ginnaaw bi nga xamee ni Sénégal moo ngi ci 17 millions yooyu kon ndax kii li ko may fitu di wax lii ndax bëgg pétrole gaz rek la wala ndax daa am ay yeneeni pouvoir wala yeneeni puissance yu làquti ginnaawam ngir andi génn ñàkk déggoo ci suñu diggante waaye ngir bëgg lii di gaz bi kenn du ko jariñoo loolu dañu lay bàyyi ci commentaire yi nga wax ci sa xalaat ak li nga xam ne yow danga ko am ci say investigation ak say gëstu jàngeen ngeen jëf ñaanal na leen jàmm yéen ñu topp